sëriif du yab taaw Sidina di doomi taaw la di taaw taaw bay Abdoulaay kay taaw Sidina Seydina kadi taaw limaamu cey taaw taaw ci ndey taaw ci baay tey doomi taaw taaw baay wa seynu laay mat nga taawu baay Abdoulaye taawu baay Ousseynou Seydina ana la jiital te naan la yaay taaya taawu na taawu la baayam ba taawu doon taaw ca boor ji dimbal leen ñu xam ni mooy taaw sëy naa laay taaw dafay bari xam-xam bu diine lislaam am yar te ami teggin ñu xam ni mooy taaw sëy naa laay taaw dafay bari ngor géeju lool ci day ni mooy taaw taaw dafay bari muñ day bari day ñi meñ ba ñëpp xam ni mooy taaw sëy naa laay maa wa sëy nu laay yaa di seen doom maa su bay Abdoulaye yaa di seen kon jox naa la limaam di aati yey oo way wu neexe ni lem nan ko déglu yow ni lem nan ko déglu yow ni lem nan ko déglu

way wu neexal dem nag nga déglu yow sey naa laay ak ku mu jur faawu gaynde ngay doon Abdoulaye di njoloor Seydina nga di sey naa laay way wu neexal dem nag nga déglu yow laay ñoo di gaynde yi may seen jaxaay du caaxaan xaacu mooy li ma war ngir di xàllalu say laay jox naa la li ma baayam day ja waalo waalo moo di gar doomi gar mi teg ca dib say waay waay wu neex ni lem nan ko déglu yow Seydina laay diine ji sa tool baaye yow Seydina mooy ci bàyyi benn mooy bay ko yow saay Seydina laay waay wu neex ni lem nan ko déglu yow Seydina laay lambi diine bu sajje ci réewi soodaan Seydina fu mu dem ñépp xam ni mooy saay laay way wu neexe ne leen nan ko déglu yow sëy naa laay imaam saxeera ko jàngal yëmbal ne leen waaw jox ko kaa ngi marok naar ya naan ko cëy saay jox naa la limaam moo di addiyey sëy naa laay way wu neexe ne leen nan ko déglu yow sëy naa laay min na daara ba waa faas jox koy médaille am na jom amite gintaaru tey taay Seydina Laay jox naa la li ma jox koy médaay am na jom amite gintaaru tey taay jox naa la teral sa njaboot daayirey aalu laay baay njiin du baay njiin fu mu dem mbaa fu seex mbàkke teew yaa fa dem di leen bégal ñu xam ni yaay taay Seyna laay kon daayira yi nee leen xayartu Seyna yaa di seen lumière yaa di seen badar Seyna laay jox naa la li ma moo di addiya Seyna laay wayu neexe di leen man ko déglu taw ci ndey taw ci baay tey doomi taaw taaw baay wa Seynu laay man na ab taaw Seyna laay jox naa la li way way wu neex a di lew nan ko déglu yow Seyna Laay taawu Baay Abdoulaye kay taawu Seydina Seydina ka di taawu limaamu ciy taaw Seyna Laay way wu neex Seydina Laay mbaax nga doon na ca Baay Laay ak Seydina Baay Abdulaay ca wuti bël la mbaax nga dit saa Seydina naa la limaam moo di àddiya di lem nan ka déglu yow Seydina nga doon na ca Baay Laay ak Seydina Baay Abdulaay ca wuti bël la mbaax nga dit saa خللا